ñu dikkaat ak yéen ci suñu émission munawir fi ci dakar actu fas yéene dikk ak ci jangat bu am solo euh, moy lan moy iñan wala sohor am ku suñ borom di musululoo yonente bi sallallahu alaihi wasallam moy hasid ida hasad mon ko min sharri hasidin ida hasad moy ko iñan ba pare di utiliser sohoram kon dal discours tay bi mi ngi nek ci walu sohor ak iñan ci loolu la ñuy waxtaane muy tomb bu am solo nag te yaatu lool ci société bi euh, iñaan wala boog soxor am ñu naan jalousie arab di ko wax alxasad ci gàttal iñaan soxor mooy bañ nit te defu dara euh, foo toog di yàq deram lu bon lu ne nga wax ko ci moom te amaana sax mosoo ko gis euh, iñaan soxor mooy bañ nit te amul benn sabab bu tax nga bañ ko da nga koo bañ ndax daf la app alal wala oto bu rafet bu mu am wala kër bu rafet bu mu am wala soxna bu rafet bu mu am nga ko iñaane wala daraja ju kawe ju ko yàlla jox wala place bu kawe bu mu nekk wala daf la ëpp xam-xam wala daf la ëpp mbooloo lii yëpp nag euh, weddi xéewalu yàlla rek la te ku weddi xéewalu yàlla moo tax may wax ne man xasada kafara te wa man kafara adxalahullahu naar ku iñaan weddi nga xéewlu suñ borom te ku weddi xéewlu suñ borom suñu borom bu ko neexee mu tàbb la sawara kon ki gën a sonn ci àddina mooy ki soxor mooy ki dul dem te bëggul ko ko raw ko iñaan euh, day bëgg kilifteef foo ko fekk rek day bëgg kilifteef bëgg ko ko warmaal bëgg ko ko yëkkati waaye toujours moom mooy gën a suufe suuf ndax sallallahu alayhi wasallam neena al na la laa ku iñaan mom du mës don kilifa du mës yilif dara ki njëkk soxor ci li yàlla bin nak moy iblis soxor iñaan motax motax moo mu def ay pexe ba génne aadama ak hawa ci aljana qala allah taala wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fa kula min xaythu شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أنا في مجو مم سيتاني فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين سلو برام نفوخون أنا ماك حوان لن دكلن جي أجنا دم لن فلن نيخ لك لن لن نيخ وايا غرب جي موم بولن كو جيجي سيطاني كيك سخرام دال دي نيو فخي با لن جخس لن لن jaxase seen xel ne leen li tax yàlla bañ ngeen lekk ci garab gi dafa bañ ngeen nekk ay malaika wala sax dafa bañ ngeen bokk ci menal xaalidin mooy ngeen bokk ci immortel yi ngeen bokk ci ñi nga xam ne du ngeen dee ci lañu ñu jaare nag ba lekk ca garab ga ana bañ ko lekkee lu leen yàlla wax moo tax yàlla ne leen waa qul lakuma inna shaytana lakuma aduwu mubin ndax waxuma leen woon ne saytaane mi seenum noonu la ah ñu ne ko qaala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin nako wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin minal khasirin ne ko ñun daal xam nañ ne léegi tooñ nañ suñ bop legi nak ñu ah dañ bokk ci gaay yi gëna perdu perte de mota soxor iñan ba yalla waxé malaaki ne len sujootal len adama iblis mom dafa bañ lan moko japp soxor ak reey rek ko jappun bobu te bo xasse ba soxor rek da ngay dal di reey motax borom di netti wax ne آه، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لم تنتم قال أنا خير منه خلق أنا خير منه لأن خلقتني من نار وخلقته من طين كون كوكو فوف لا كوماسي ndax ba yàlla dajalee malaaka ne leen su jootal leen aadama te iblis moom di jinne te bokkoon biir malaaka yooyu yàlla joxoon digal ne leen su jootal leen aadama iblis moom rëy da koo jàpp saxoor jàpp ko racisme jàpp ko kon baatu racisme ci iblis la jógee ndax moo wax ne ana xayrum minhu man maa ko gën ñu ne ko lu tax mu ne xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tin man ci sawara nga bind moom nga bind ko ci ban comme moom jàpp na ne kuñ bind ci sawara moo gën kuñ bind ci ban kon kooku fa la racisme commencé fa la iñaan commencé fala la agré commencé kon loolu lu ma a bàyyi xel la soxor iñaan iblis wàllu na ko mbokki yusufa ya qaala allahu taala laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissaa'ilin id qaalu li yusufu wa axuuhu ahabu ila abina minna wa nahnu xusba inna abaana la fi dalalin mubin am ci ñoom ca seen biir ñu ca ñu ñu ñu bon daal ne uqtulu yusuf aw itraxuuhu arday yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman salihin am ci ñom ñi ci gëna bax dal ne qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'd ba'd as sayyarati in kuntum fa'ilin ñu ne na ngeen jàpp yusufa ray ko am ci ñom ñu ne déedéet buñ ko ray nañ ko duggal ci ak ben ñu duggal ko ci ben lenn ci ba'du sayyar yi manam voyageur yi jaar fa yob jënd ko jaam bokk jaay ko voyageur yoy ñoo jàpp ko yóbbu ko jam ca misra moy égypte léegi ba suñ borom dëgëral ko fofu non def ko fa bour def ko fa traga gu reey reey mu lo alcorane di wax ne wa kadhalika makkanna li yusufa fi ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha ولا nudayhu أجر المحسنين muhsinin أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون amanu wa mu ñaan ñaanam gu siiw googu wax ne rabbi qad aataytini min almulki wa allamtani min tawili alahadithi fatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunia wal axira tawaffani muslima wa alhiqani bisalihin ci la ñaane ñaanam gu siiw soxor iblis wàllu nako ko ñaari doomi aadama ya wa wax habil ak qabil euh, kenn dafa soxore moroomam baray ko qaala allahu taala watlu alayhim nabaa abnay aadama bilhaq id قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى آخر قصة أو إلى آخر آية moo tax sab noon dina la fexeel te xamul ne pexe yooyu ak yëkkatiku ak yokkute la lay jural te sallallahu alayhi wa sallam nee na iyaakum wal xasad ndax inna alxasada yakulul xasanaati kama takulul naarul xatab nee na maa ngi leen di moytandikuloo ngeen iñaan ndax iñaan day ni sawara di lekke matt noonu la iñaan di lekke ay leer ci biir xolub jaam bi kon na ngeen koy moytu moo tax sallallahu alayhi wa sallam na laa tabaagadu wala taxaasadu wala tabaadaru wala taqaatau wa kunu euh, ibadallahi ixwanan bu leen bañante bu leen soxorante bu leen wonante ginnaaw bu leen dëdduwante bu leen dogante ak mbokk doon leen ay jaam yàlla doon ay mbokk ndax inamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum jullit ñëpp ay mbokk lañ kon yow mi iñaan xanaa dangaa fàtte ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo wax ne faalun lima yurid mooy def lu ko neex lu ko neex rek lay def yàlla moom ñaari ñaari la la mooy qudra ak irada mooy qudra maa am doole irada luma def ma dama neex lolou moom kenn mënu ci dara te yow mi iñan xana da nga fatine iñan mom ci ñet yi rek lañ koy def moy wa anal fadl bi yadillah te wallahu yaqtas bi rahmatihi ma yasha man nit ki iñan mom ci ñet yi rek lay iñane nit da koy iñane ndax wa anal fadl bi yadillah ngeenel lu ko yàlla jox te ngeenel mom yutihi ma yasha yàlla moy moy xol ku ko neex mu jox ko ko wala da nga koo iñaane ndax lan wallahu yaq yaxtassu bi rahmatihi ma yasha yàlla dafa jël yërmandem defal ko ab jaamam nga iñaane yërmande jooju jaam boobu te loolu yàlla moo koy defal ku ko neex wala yow mi iñaan da ngaa iñaane nit ndax wërsëg bu ko yàlla jox te sunu borom moo wax ne wallahu yarzuqu man yashaau bi xayri xisaab boobu suñu borom mooy wërsëgal ku ko neex ci lu dul mu koy sax audité kon loolu it يومي ينان غباي كو خيل صلى الله عليه وسلم نينا اذا قال الرجل هلك الناس فاهلكم كيب كو ني نيت ني الكو نان ياو يالين غن الكو لا ياو بوكو الكوغا تي سيرن توبا نينا واحبب المؤمن للايمان والتبغض الكافر للكفران كي غم يالا بوكاي بغن بو دارا تخ نغ بغكو بو علال با اسكن با تار با دارا نغ بغ رك غير غم جيم غم يالا يفر بي ويد يالا يت بوكاي باج بو كو باج غير دارا نغ كو باج داخ لي ويد يالا كسه وأحبب المؤمن للإيمان والتبغض الكافر الكفراني تسلى الله عليه وسلم لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كأن تي يندون أبجلت لودلم بغل بابم دفكو بغل بوكم جلتم موتاح كي سخر يوم أمل بسيانس رك تيكنا مم ndax sa patience bobu mom moko ray ndax isbir ala sabr al hasud fa in sabraka qatalahu sohor nak ci kabair la bokko ci Moy, euh, moy ci bakkar yu mag la bokk ndax soxor moy ñak nangu dogalu suñu borom iñaan soxor moy lan iñaan soxor moy ku yalla yëkëti nga bëgg mu suufé ku yalla jox nga bëgg mu ñak ku yalla sétal nga bëgg ko tilimal ku yalla taral nga bëgg ko ñaawal ku iñaan fu ñëne diw da baax il faut mu ut lu mu ko sikélé wala franc-maçon la buñ diw da rafet mu ne xana gisoo karamam bi wala bëtam wala sax mu ne dafa am gaf. ko iñaan bu sañoon ñëppay dé mom rek mu dund ñëppay ñak mom rek mu am ñëppay bon mom rek mu baax ah, ku soxor bu ngeen anda wara and dem fenn boko gëné gënee rek day daal di fomm ndax soxara koy japp boko gëné gënee rek mu daal di fomm ko iñaan toujours defoy nit ñi rek lay xol té lu bon lu mu la xamal mu siiw té yakamtina ba nga wax njaaxum ba nga def njaaxum ba man ko tassaré ci whatsapp bi ak internet bi oh, pour mën a yàq sa der commencé nag ku mu gis ne la saa waay xanaa déggoo diw li mu wax mbaa li mu def te du ci yem du yem ca loola daf koy yokku dal koy augmenté ñaawal ko te Sëriñ Tuubaa nee na laa taltamis min uyubi naasi ma sataru fa yaxtika sitran am masawika bu leen di gëstu ayibi nit ñi nga xam ne nit ñi bëgg nañ ko tasaare ngeen koy gëstu di ko di ko bu ngeen ko defee rek suñu borom dina xawi seen sutura te alquran nee إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة نيغا خامني فولن فك داني خول جولي دي رك دي خول نياوتي سين ريتي ريتي ييغا خامني موم لاني ديف فولن فك رك نيو نونو نيغي بيغا جيل نياوتي فيوي bëgg yóbbu ci internet yi bëgg yóbbu ci whatsapp yi di ko tasaare yàkkamti nañ ba nit def dara rek ab jullit def dara rek ñi jël jëf ju ñaaw jooju gaaw tasaare ko ba nit ñi yëg ko alxuraan nee na ñooñu di def loolu di tasaare jëfi nit ñu baax ñooñu day jëfi jullit yooyu nee na mbugal mu metti mi ngi leen di xaar ci àddina ak ci alaxira moo tax ida arada allahu nashra fadilatin uh, tuyat uh, ataaha laha lisaanu xasudin yàlla bu tracé nga effacé dalay effacé ba pare soog a tracé waat nga xam ne doo ko fekkee nga xam ne tey boo xoolee nit ñu baax ñi fi samp lu baax ñëpp avant seenub liggéey doon mat ña leen doon iñaanee ko rek ñoom ñëpp faatu nañ euh, kon iñaan baaxul euh, ku soxor ku iñaan toujours xolam day naqari te du am yaram mukk day jeex rek moo tax gis nga boo amee yaram te bëgg a régime jëlul ngay régime soxoral rek booy soxor di jeex ndax soxor ci yaram moo raw cancer ci yaram posan la moo moo raw moo raw sax posan ci yaram soxor ci soxor ci biir yaram ci biir xol moo raw posan ci yaram boo bëggee régime te mënoo régime soxoral booy soxor di jeex takk ba mel ne ab bant kon soxor euh, lu mat a bàyyi xel la euh, ku iñaan ku soxor du am mukk day àbbu rek te lu mu am mu yaq ndax wul kenn lu bax ko iñan bo xoolee kanamam pour yow da ñaaw ñaaw de bonok xol gi nek ci yaramam moy feñ ci kanamam moy présenté wu ci kanam bu ko defé nga yakane ci dafa ñaaw fekk ñaaw soxor ak iñan ak bon gi nek ci mom moy genn nga nek ci dafa ñaaw fekk ñaawut bonok xol gi nek ci mom rek genn euh ku soxor euh, day sof mel lek lekk katub suuf ku soxor bu sango du set bu lekkee du suur ndax toujours euh, day am lu ko metti ndax yàlla day yëkkati ay moroomam moom muy gën a suufi rek di gën a torox ku iñaan foo ko fekk dañ koy dimbale waaye moom du mës a dimbale ku iñaan jours day ñàkk classe ñàkk sens bon soof ñaaw xeeñ ñàkk xorom euh, ku iñaan day gàttu fan ndax euh, naqaru xol moom moo koy rey te buy dee bu moytuwul biir buy daw lay amee ndax coxor ga day genn ci biti kon soxor baaxul soxor man na andi nit ki buy faatu biram di daw kon lolu lu mata baye xel la ndax soxor ga day daal di génn nekk bir bi daw ba mom mo koy sax mujjé far daal di kon soxor baaxul iñaan baaxul moo buma bu ma fas kanam kanamam di fu ñaaral di ñi nan ah ki da am fulla ki da nangam dedet dafa bon soxor iñan rek ko japp nit ku bax da ngay reetaan yaatal sa kanam ubi sa bop am jam bari ay mbégte yaatal sa bop ci nit ñepp am na ñoo xam ne moom seen soxor ak seen iñaan euh, dañoo soxor ba amuñu ci sago du mënuñu ko nëbb te seen soxor googu ñoo ngi ko jëmale nag ci sëriñ si ab sëriñ daal la ñuy bañ a gis ndax lan daraja jëleen yàlla jox ak wërsëg ba pour ñoom daal daraja ak wërsëg ñoom ñoo koy seddale séddale mënuñoo supporter ab sëriñ ñu lay gis nit ñi di la wormaal di la yëkkati loolu moom mënuñu ko supporter ñooñu nag foo leen fekk ñaar ñi lay doon doomi soxna bu amul barke ak boroom xam-xam bu amul bay la ñaar ñooñu moom mënuñoo supporter ab sëriñ bu yàlla yëkkati ci ci ci ci ci ci ci ci ci bu yàlla teral ci ci al alal ak mbooloo boo nee boo nee boo waxee ci seen kanam ne sëriñ diw daa am daa am boo nee boo waxee ci seen karam ne euh, sëriñ diw daa am alal ñu ne la franc-maçon boo nee boo nee boo nee daa am mbooloo ñu ne la day njabar nit ji boo nee daa sell dafa baax ñu ne la dafa bëgg jigéen wala day daan sàngara il faut ñi wax ci moom lu bon خانا دا فاتني سونو بروم نينا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض تولى الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا يومي سخور دي إنيان دي جيس نيت كي مو أم ألال دي جيس نيت كي مو أم بولو دي جيس نيت كي مو أم درجة نغا كوي إنياني دي كو سخري أه بس خول دي دي, دي, دي نقري فوتوك دي يقدرم suñ borom neena sa xol bu naqari bobu dang koy déwalé ta yowmal khiyam sa xol yi day né naqari ndax iñ yëkkati ma def ma defal koku ak ngëneel la ma ko defal yowmal khiyam lay rawati wala al akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila ta al qur'an neena am yaxsuduuna naasa ala ma atahum allah min fadli ndax di ngeen da ngeen di nit ñi ci ngëneel li leen yàlla defal kon soxor baxul nañu ko moyti amna ño xamne dañuy jàngi ba ñëw te seenum jànge du leen jariñ dara ndax werante ak dingat rek moo leen di tax a jug te soxor rek moo ko waral yaatal leen seen xol yi waaye te def leen te def def ci yàlla xol bu ci yàlla nekkul soxor am ca place te yow mi soxor nanga nga bàyyi xel lii nii yow mi soxor nanga nga nangu dogalu sunu borom soxor nag dafa yaatu soxor moom dafa yaatu sama xarit am na lii te amuma ko loolu soxor la sama doomu wujj bi du sama doom loolu soxor la diw sàngam place bi mu am wala diplôme bi mu am sens ak connaissance la mais du mérite loolu soxor la diw am na soxna wala am na jëkkër nga dégg ko sa naqari saa yoo xëyee di xool lu koy yàq loolu soxor la ñaari xarit yuy ànd saa yoo xëyee ngay dox ci lu yàq seen diggante loolu soxor la diw am na bac wala tukki ne wala jàll na examen bi nga dégg ko sa xol jeex loolu soxor la diw société bi daa nekk en faillite wala daanu na nga ne xamoon naa ko wala yéene naa ko ko loolu soxor la euh, diw dañ koo ëmbal sa yoon nekku ci loolu soxor la euh, diw daa am xaalis nga ne franc-maçon la loolu soxor la diw dañ koy tooñ te mosulaa lekk mbaa mu lekk sa benn mbokk loolu soxor la diw ab jaam la loolu soxor la fii ñëpp jaami yàlla lañ te suñ borom ñi mu gën a fonk ay jaam la leen di wooye muy Abdullahi Euh, diw judduwul ci yoon lu ci sa yoon sa yoon nekku ci loolu soxor la diw baayam juru ko yow bu la sa bàyyi jurul lu mu lay wàññi fexeel ba juddu rek boo juddoo ñëpp bëgg nekk ba ñëpp boo juddoo fe fexeel ba baax rek boo juddoo baax ñëpp bëgg a doon sa bàyyi may bu la sa baay jurul du la wàññi dara yow fexeel juddu rek ne ñëpp boo juddoo ne ñëpp di lekk di naan fexe ba baax ñëpp bëgg a doon sa baay te yow mi naan diw sàngam day baayam juru ko yow ndax baayam moo la wax ne juruma ko ak yow it lu la yow mi wax lolu lolu orna yow sa mo la jur kon bàyyi len yàq ak soxor lolu baxul ah ubi diw bi du dem kërëm gi du ag lolu soxor la ah, say dom wara jang wara am avenir nga ne doo fayal jang sen avenir dal sa yon lolu soxor la diw jay tar la wala samba alar la wala euh, dafa mën wonewu yow loolu soxor la am soxna war koo defal te defaloo ko euh, euh, loolu soxor la ku soxor nag nit ku soxor iñaan foo ko fekk gimiñ bu xeeñ lay amee xetu ku soxor moom ko médd da gis nit ñoo xamante ni da nga yaakaar ne dañoo sanguwul wala déedéet sangu nañ de lu ñu sangu sangu terewul dañuy xeeñ ndax dañoo soxor soxor gi mooy génn nekk médd ci seen yaram ku soxor lu mu sol mu xat ndax xolam bu xat ku soxor day ñak personnalité té du avancé mukk té dañ koy offenser julit bu japp ne yaa gën sa mom julit wala nga nan sama tarixa mo gën sa tarixa wala nga ne ku nekkul ci la nga nek nga yaakaar ku nekkul ci la nga nekk mo mo mo mo mo wala nga yaakaar ku nekkul ci la nga nek du julit yalla rek mo xam ci bax ak li baax euh, lolu jëfi shaytané la ak soxor mu dess nak hasid iza hasad koku la yalla wax ne nañu ci muslu mooy ki soxor ba pare di utiliser rek soxoram mooy xaasit isa xasat ñi moom dafa soxor ba pare nag wëlbatikuwaat nag di utiliser soxoram ana kan mooy xaasit isa mooy ki nga xam ne lu mu yor ci njabarkat yi la ko jëmee doomi diw ji bu teg tekki liggéeyal ma ko na dee na feebar na alalam yàqu naawtalal ma ko sëyu diw bi tasal ma ko fi muy liggéeyee nañ ko dàq sama wujj bi bu mu amati accès ci sama jëkkër ay doomam dadilal ma ko ak seen jëkkër palaasu diw bii bu mu dox liggéey ko na dof am na jigéen yoo xam ne seen régal perturbé bi muy perturbé ñàkk normal xaasit isa xaasat moo leen ko def mooy ku iñaan ba pare dem di utiliser iñaanam dem ci sëriñ si di eh, di di di liggéeyaate am na ñu tëdd ci arm ci ci ci ci ci ci ci hôpital yi xaasit isa xaasat moo ko def mooy ku iñaan ba pare di utiliser iñaanam dem liggéey leen ba ñu feebar am na ñu tëdd ci armeel yi faatu ku iñaan moo leen fa tëral ndax dem na ci njabarkat liggéey leen ba ñu faatu kon Euh, loolu nañ ko bàyyi xel kon nag rikkuwaay yi yéen ñi nga xam ne da ngeen soxor iñaan ragal leen yàlla ci nit ñi te bàyyi liggéeyante bi xaasit isa xasat mooy ko soxor di utiliser iñaanam di surtout utiliser soxoram foo ko fekk lu yàqal nit luy alak nit rek ci lay dox te Sëriñ Tuubaa nee na an nafu wa durru min arrahmani laysa min al bidaani wa suudaani laysa min al aadaai wal ahbaabi nee na njëriñ ak lor ci yàlla lay jóge de waaye du jóge mukk ci ab noon ba ab mbaa nit ku weex ak ku ñuul kon loolu lu mat a bàyyi xel la te alquran nee na walladina yuzuuna almuminina walmuminati bi gayri maktasabu faqad ihtamalu buxtaana wa ithma mubina ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy soxoreen dañuy lor jullit ñi di dem di leen liggéey di leen jef ci ay jëf yu ñaaw wala ñi leen di saaga wala ñi leen di yàq seen i der wala ñi dem ci sëriñ yi di leen fay ñi leen liggéey nee na ñooñu day yanu nañ bàkkaar bu mag a mag te mbugal mu méttee métti mi ngi leen di xaar moo ngi suul ay liggéey ci place jàmbur mooy ki nga xam ne dafa soxor ba pare di utiliser soxoram moo ngi suul ay liggéey ci place jàmbur yi wala bureau jàmbur yi wala kër jàmbur yi te te sallallahu alayhi wa nee na al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisani ab julit dëgg mooy ki nga xam ne julit yëpp mucc nañ ci sa ayu loxo waaye mucc nañ ci sa ay ci sa ayu lamiñ doo lor mukk ab julit ci sa loxo waaye doo lor mukk ab julit ci sa lamiñ yow mi soxor yow mi iñaan noppalul te noppal te noppal sa bopp noppal nit ñi té nangou dogal suñu borom té nga bayyi nak lepp lo xamné day lor say morom nga bàyyi ko te bu ci jëmati té nga xamné nak garab yow mi sor ma ngi lay xamal né yow mi sor yow mi iñan ma ngi lay xamal ne garab gu nara sax ci pinci law bi du ko gis bako yett yet na nga xamné yow mi sor na nga xamné yéene la borom mo cey fanan yow mi sor yow mi iñan na nga xamné ku ñuluk nit ñi yak sa bop yow mi soxor nanga xam ne noonu démb dey bu ñu nangoo tey dañoo ñàkk pexe yow mi soxor na nga xam ne bañ du bëgg yow mi soxoor na nga xam ne nag jikko dina doon jaan matt boroom te balaa nga xam nag yow mi soxor xamadi xaw laa rey yow mi soxor nala la óor ne ku ji sa bànneex góob sa naqar yow mi soxor yow mi iñaan na nga xam ne lu waaye ren di ci sa loxo lay nacc kon nag sa coxor googu raxas ko ci sa xol te yéene nit ñëpp lu baax bàyyi nit ñi ngay liggéey bàyyi nit ñi ngay waxal lu ñaaw bàyyi nit ñi ngay yàq seen der bàyyi nit ñi ngay iñaane ak di leen soxore soxor baaxul ku soxor amutuk mujj yal nañu yàlla musal ci soxor ak liggéey nit ak bañante ak iñaan ak ku iñaan ku bon ak lu bon yal nañu yàlla musal ci ku lay siiñ di la ree te bëggu la olof nee na bañ weex na waaye deret moo ko lal yal nañu yàlla musal ci noon bu jëfër ak kuy tiit di wax ak rambaajkat ak noon bu mën a créer ak seytaane koo xamante ni dafa seytaane lool yal nañ ci yàlla musal yal nañu yàlla defal jàmm mucc xéewal sutura gudd fan wér ak mujj gu rafet te jéggal ñu jéggal jullit yëpp wa hab lana makaarimal axlaaqi maxa tahaabubi bila shiqaaqi واجعل صغيرنا يوخر يوخر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على تواجد بلا